loo yéen nañu war a sigil su ngeen jëlee ndam li ñun dañuy sigi sigi yow Je pense que c'est le, le, sentiment le mieux partagé ce soir à, euh, au stade de euh, la de Thiès. Euh, pour la simple et bonne raison que le Sénégal n'était pas capable du tout à, à venir à bout d'une équipe euh, ku mel ni Eswatini man li ma mënul comprendre mooy ñu ñu mëne la Eswatini équipe mel ni Eswatini am un point sur six matchs mëne la un dès la quatrième minute avant 45 premières minutes mënoo ko wekki te nga ne yow da nga bëgg a jël coupe d'Afrique des nations te nga nekk fii depuis 15 euh, euh, mars euh, ba léegi. 6 ans je pense que euh, il faut arrêter Aliou Cissé c'est ça la réalité. voilà donc nag voilà merci voilà da sentiment kii wala ñu wàcc ñu wàcc jëlal ma kii bi kon nag gis ngeen sentiment bi mu wax dañuy tàllal suñu micro li nga xam ne le nag moom mooy kii bi. Euh, fii ci euh, stade euh, li nga xam ne kon nag voilà Malick Thiandoum Malick Thiandoum en direct à la télévision de Walf Malick Thiandoum sa impression ci match bi. lu ma mën a wax rek mooy c'est le match nul de la honte c'est également pourquoi le match nul de la honte parce que tey équipe bi jël 153e classement FIFA moom moo ñëw tenir en échec équipe bi ñuy wax ni mooy première équipe de nation en Afrique de la sixième. à la quatre-vingt-dixième minute on a couru derrière le score et li nga xam ne moom lay wane encore une fois moo di ni wax kenn du ko yërëm Aliou Cissé dafa wane ni dafa am ay limites ci wàllu coaching euh, parce que dafa am lu nga xam ne dañu ko yàgg poser comme équation te mënuñu ko résoudre te tant que mënuñu ko résoudre jarul ñuy dem di xalaat gagner Coupe d'Afrique des Nations ñoo nekk ndoo woon Gabon Bruce bi mu ñëwee conférence de presse contre le Cameroun. daf ni yéen a ma gën équipe. dëgg la yéen a ma dàq football. waaw yéen a ma gën ay joueur waaye am naa sama pexe. <laughs> mu ñëw taxawal bloc bas. maa ngi woon ca foofu. ñu yóbbu ñu tiro but éliminé ñu. éliminé euh, contre Congo. ñun ñoom moom possession bal bi match bi passé. dëgg la ils nous ont laissé l'initiative du jeu. et quand tu laisses l'initiative du jeu à l'adversaire euh, eh bien l'organisation tactique devient le premier élément de l'équipe en question. On nous a laissé la possession, nous avions 60% de possession et pourtant on n'a pas pu marquer. tey jii Eswatini dafa am mérite Eswatini moom rek moo dugal Sénégal ci ci ci ci groupe bi. <laughs> dégg voilà ça information. moo ñu dugal aller. moo ñu dugal retour moom rek moom moo ñëw fii ci stade Lat Dior bi tenir ñu fi en échec. te pourtant mooy ndaare mooy beñ beñe groupe bi beñe groupe bi nag bu fekkee ni yow mënuloo ko dóor euh, euh, je pense que am nga problème te suñu problème c'est Aliou daa jaajëf waay kon nag gis nga kooku moo doon Malick Thiandoum dañuy wàcc euh, dem rek ci jël débrief waaw dégg nga léegi gaaw waaw waaw léegi ñu dem jëli way li nga xam ne moom mooy direct bi gis nga ñu nit ñaa ngi xaar conférence de presse bi ñëpp a ngi xaar conférence de presse kenn kontaanul fii estade bi kenn kontaanul ñëpp aca Euh, ñu dem rek di euh, gis nga euh, nit a ngi xaar conférence de presse bi ci li nga xam ne moom mooy jongante bi kilifa waaw moom la Cheikh Tidiane la de voilà léegi ñu dem ah jërëjëf eh <laughs> voilà dégg ñu xool li nga xam ne ñu xool li nga xam ne dégg nga ah, ah waa Mbaye Diis Mbaye Diis da nga def waaw ça ñu nekk fii ci biir Mbaye Diis na nga def waaw ah dégg nga li nga xam ne moom mooy tey jii fii euh, ci euh, euh, dégg nga ñu xaar ah ñu ngi xaar nit yi mën génn ah kenn kontaanul kenn kontaanul waa kenn kontaanul de waaw ah <laughs> voilà dégg waaw waaw waaw mais sa xalaat ci match bi. ah match bi xam li ma ci wax rek. ah ca waxal nga nekk ci Walf Walf TV. système bi ñuy joué. waaw. mokkaluñ ko. waaw. et puis ñun war nañu jouer pour suñu rang. waaw. on ne peut pas s'amuser dugal n'importe qui Sénégal dafa am rang am image bu mu préserver match bi passé nee naa c'était un match indigne du Sénégal te li ñu wane heureusement yàlla suturaal nañu parce que suñu ñoo xam ne gaañu kenn ñëw suñu de gaañu mais c'est catastrophique donc war nañu seetaat suñu bopp je crois que la direction technique doit s'investir davantage dans le choix des joueurs dans la manière de jouer tout. parce que nag quand même équipe euh, doo ko bàyyi at. c'est l'équipe nationale du pays. waaw tous les techniciens les grands techniciens. war nañu am seen mot à dire mais ay tubaab wër y a que des tubaab qui encadrent l'équipe. Mhm. ñu xamuñ suñu problème kooku war nañ ci jóg. y a au moins cinq grands entraîneurs sénégalais yu am niveau ñoo xam ni dañ koy jàppale président de la République am na cent conseillers waxtuma ak un entraîneur. Merci, Tidiane. Merci, donc, nag voilà, on attend la sortie. Euh, on attend la sortie. ñu ngi xaar dégg nga ñëwal ñëwal ñëwal dégg nga defe naa ne li ñuy def moom mooy on va essayer xool li nga xam ne moom mooy personnel bi bon mbay je ne sais pas kon nag gis nga jogante la boo xam ne vraiment doy na waar Sénégal def benn match nul boo xam ne. match nul bu kii la xaaral leen ñu daw ba waaw. loo la waxoon ne Gomis Gomis dafa am loo xam ni du denc foolu Sénégal waxoon naa la ko. gis nga garab bu la suul doo may ker am nañu ay joueurs mais y' a pas d' entraîneur l' entraîneur est très faible ndax ñu ñu posé mënuñu fexe ba dindi ko c' est pas normal nañ seet tali duñ ci bàyyi duñ ko bàyyi mu ne ko def dañ koy faj. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. man maay Fallou Ba ancien international. Fallou Fallou Fallou. yooyu sama mais mais gis nga daañu ñuy dàq. waaw waaw déedéet non mais attends. ah non mais attends. ah waaw déedéet non mais attends daf leen daañu. non man noonu waaw ñoo leen ñoo leen jàpp si rek xamante ne yàgg nañu liggéey sama xol mënul tàng fële sama xol di tàng fii ñun ñoo koy seddal nag ah, damay liggéey ah waaye damay liggéey eh kaay yow kaay kaay kaay kaay ah Fallou c'est international eh, eh xool sama naataango yi non xool sama naataango yi waa léegi non presse laa jëm mu ngi ne point de presse. mais tous ces gens qui vous suivent. non mais non kenn suivre ma point de presse laa jëm. man point de presse laa doon dem. waaw donc mu ngi noonu. Euh, li nga xam ne. waaw gan damay dem point de presse. damay dem point de presse am naa droit bi. kay kay kay. Eh, kay. non damay dem non damay dem point de presse. xanaa am naa droit dem point de presse am naa droit dem point de presse voilà léegi man am naa droit léegi taxaw fi laaj ay xalaat ay xalaat bon d'accord voilà ah voilà waaw. waaw monsieur Gomis tey chaque fois dañuy am déception ci footballu Sénégal à cause de l'entraîneur franchement lii ñuy gis c'est pas du football on veut du bon football. ñun nous sommes des anciens footballeurs gomis xam nañu au moins lan mooy football mais Sénégal tant que mi ngi l' entraîneur on ne gagnera jamais la coupe d' Afrique man maa la wax lii biir Thiès. on la gagnera Sénégal ba mu ko yoree ba léegi on nous dit que gagné wul mi ngi gagné mi ngi am résultat mais finalité c' est zéro kon nañu xoolaat l' entraîneur lii ñuy football ni mi ngi mel ne sont pas des professionnels lii dafa ñaaw. ci footballu Sénégal. voilà loolu rek laa donc nag defe naa ne. Euh, ba ah, euh, kay kay kay kay ku nekk da ciy wax sa xalaat waaw. Pape Seck Marseille. Eh, <laughs> comment euh, yow noo gisee match bon c' que football dafa am ay réalité boppam. boo bëgg essayer système bu bees il faut mu am ay lacunes aussi. parce que mënuñu ko assimiler si trois jours yi ngi leen jël kese c' est impossible war a nga nekk magicien man bu ma doon Aliou match bee ñu jëkk def sa dama leen di wax jouer avec votre valeur personnelle avec un 4 trois 3 pour qu'on puisse exercer et ñu jouer bu baax mais là essayer un système dans un match officiel c' est trop risqué pour nga jël leen trois jours kese pour mën réussir loolu dafay doy waar quoi. d' accord ok euh, Sambou Biagui notre confrère le temps que ñu am yeneen réaction Sambou Biagui Euh, gis nga jogante bi euh, yan sa lan moo ci sa xalaat. Euh, chaque match dafay confirmer li ma wax. Mhm. mooy Aliou Cissé munul. munul yaakaar naa ne te ko confirmer confirmer na ko keroog am Massamba Déba mu confirmer waa ko tey. mais munul pourquoi boobu léegi munul munul mën a ci équipe mooy problème bi xam nga ñun xam nga ñun ñun analyser lañ xam. wax ci lañ ci xam mais ñi nga xam ñoom ñoo ko fa teg ñoom ñoo xam parce que tu ne peux pas être à la tête nationale pendant six ans tu n'as pas de projet de jeu. amoo benn projet de jeu amoo benn onze type boo xamante ne même quatre joueurs yi titulaires yu valable amoo ko nga bëgg a comme ça mais regarde l'Algérie regarde les autres pays dañoo gagné ay cinq équipe équipe bi da ngay aujourd'hui Aliou un problème de joueur c'est un problème de projet il n'a pas un projet viable il c'est pas un architecte c'est quelqu'un j'ai même l'impression man souvent loolu lay ma est-ce que Aliou Cissé sur le banc Est-ce qu'Aliou Cissé regarde le même match que nous Est-ce qu'Aliou Cissé sélectionne les mêmes joueurs que nous Est-ce qu'Aliou Cissé fait les mêmes changements que ñi nga xam ne ñun donc c'est le moment si on veut aller à une CAN pour gagner une CAN c'est le moment de se dire la vérité et la vérité est que Aliou Cissé mënul d'accord jërëjëf voilà Sambou Biagui malheureusement euh, nous n'avons pas personne euh, gars yi génn guñu ñu ngi doon xaar waaye ça va da ngeen def ça va a ngi si jàmm euh, kay kon nag mu ngi noonu euh, briefing bi ma mën a def mooy que Sénégal joué na match nul na un but partout ci fin ba le Sénégal mujje égalisé difficilement ci équipe bi nga xam ne euh, mooy Eswatini mooy équipe bi gën a euh, maanaam moyen ci classement FIFA kon nag mu ngi nii def nañu match nul boo xam ne lii de ñaari match yi mujjee dalul xel dalul benn xel parce que ñu ngi attaqué éliminatoire yi à coupe du monde juin mai juin et foofu il faut que ñu xoolaat bu baax bu ñu xoolaatee bu ñu xoolul bu baax ah lambaay atat na ñaaw fu mu waxee ñaaw waaw li nga wax dëgg la tey boo xoolee stade bi tey euh, kenn kontaanul euh, kenn kontaanul parce que simplement euh, kenn kontaanul waaw Diagne Faye mu ngi noonu mais waxtu bi ñu cëralal moom moo jeex journal moom mooy ñëw Gomis. ok le sentiment li muy partagé c' la déception totale. d' le sentiment li muy partagé c' est le départ Aliou Cissé ña gars yi dañuy mënuñu na bàyyi. c' ça gars ko wax nag ñun moom on a fait commenter. parce que ba ñuy xoolee ñëpp loolu la ñu wax. donc ñu ngi doon xalaat victoire du Sénégal finalement défaite moom la ñu moom la ñu am. finalement à la fin du match égalisation en dernière minute mu nekk une déception nga xam ne dañu merci vraiment le monde sportif merci Walfadjri ci liggéey bi a xam ne moom la ñu def. dem parce que euh, parce que léegi nag euh, dañuy dem ci euh, Diagne fay xaw ma ndax vous connaissez Diagne Faye on va essayer de parler avec Diagne Faye rapidement mu wax ñu euh, réaction dégg nga voilà on a voilà non non non mën naa ko si vous connaissez Diagne Faye voilà Diagne Faye yaa ngi nii après léegi on va le voilà. équipe bi mais instant yii nii vraiment c'est on n'est pas content du tout vraiment si si match bi quoi. bi lan man pour man voilà. système bi pour man pas 3 cinq pour man eh, dafa des quoi parce que on n'a pas besoin de ça ay trois défenseurs derrière parce que on n'a pas des joueurs pour tu vois mënoon na jouer avec 4-4-2 je pense pour man c'est plus facile. tu vois mais dafa am ay joueurs ba pare mais instant yii on n'a pas besoin de ça pour man tu vois c'est dafa doy quoi si si si si si à chaque lu ñu dese pour kan bi instant nii bareetul instant nii tu vois te te lii baaxul aussi si population bi parce que day tax xam nga dañu am ay doute si si bi mais on est con on est man am naa confiance équipe bi quoi tu vois dina tax aussi ñu gën a defar waat xam na ne bon voilà am na am na lu bari lu des mais. bon mais des na quoi. vraiment mais mais Diagne confiance euh, nga xam la Cissé comme ni ko gars yi di waxee la plupart dañoo ne noo mënul dafa war a bàyyi foofu système yi muy def nii dara doxu ci yow nga ne on est confiant. bàyyi am am yi ñu am. loolu laa wax loolu laa wax ci joueurs yi am mais. Ah, c'est c'est l'entraîneur qui c'est l'entraîneur qui décide tu vois mais franchement on n'est pas content moom dañ koy wax dañ koy wax on n'est pas content ci kii parce que on a. on a les qualités yi parce que joueurs yi ñu am fii instant yi nii si si si si Afrique amul benn équipe bu ko am dañuy waxante dëgg mais instant yi nii nag bon il faut oh. du ma ci wax parce que man jour la tu vois man bëgguma nga may dugal nag aussi tu vois. voilà du ma ci wax waay un peu euh, euh, bon maanaam c'est vrai euh, yow contenu bi wax ñu un peu ci contenu wu match. vraiment.